amoon na benn bésu noflaay Yeesu di dem jaar ci ay tool yu ñor taalibeem ya di fàq ay cëgg di leen boxam ci seeni loxo tey lekk am ay farisiyen yu ne lu tax ngeen di def lu jaaduwul ci bésu noflaay bi yéesu tontu leen ne ndax jànguleen la Daawuda defoon ba mu xiifee moom ak ña mu àndaloon xanaa yëguleen ni mu dugge woon ca kër yàlla ga jël mburu ya ñu jébbal yàlla lekk ca jox ca ña mu àndaloon fekk jaaduwul kenn lekk ko ku dul sëriñ si yéesu dellu ne leen doomu nit ki mooy boroom bisu noflaay bi beneen bisu noflaay yéesu dugg ca jàngu bi di fa jàngale amoon na fa nit ku loxool ndeyjooram yi xutbakat yi ak farisiyen yi ñu ngi doon xool ba xam dina ko faj ci bésu noflaay bi ngir ñu am lu ñu ko tuumaale waaye Yeesu xam seen xalaat daldi ne ku loxoom yi jógal taxaw ci kanamu ñépp nit ka daldi jóg taxaw Yeesu ne leen ma laaj leen lan moo jaadu nu def bésu noflaay bi lu baax mbaa bon nu musal nit mbaa nu lor nit ci kaw loolu mu xool leen ñoom ñépp ba noppi ne nit ka tàllalal sa loxo mu tàllal ko loxoom daldi wér péng waaye nit ña ba fees di rabat pexe yu jëm ci yeesu ca bés yooya yeesu yéeg ca tund wa ngir ñaan mu fanaan fa di ñaan ci yàlla bi bët setee yeesu taalibeem yi tànn ci fukk ak ñaar tudde leen ay ndawam simon mi yeesu tudde piyeer ak andre mi bokk ak piyeer ndey ak baay saak ak yowaana filip ak bartelemi macc ak tomaa saak doomu alfe ak simon mi bokk ci mbooloo ma ñu tudde ñi farlu ci moom seen réew yuda doomu saak ak yuda iskariyo mi mujj wor yeesu ànd ak ndaw ya wàcc daldi taxaw ca joor ga fa mbooloom taalibe mu takku nekkoon amoon na fa it ay nit ñu bari ñu jóge ci réewu yawut ya mépp ak ca dëkku yerusalem ak dëkk yi nekk ca wetu géej ga maanaam tiir ak sidon dañoo ñëw ngir déglu ko te it ngir mu faj leen ñi rab jàpp it faju nañu ñépp a ngi ko doon wuta laal ndax doole ji jóge ci moom di faj ñépp yéesu xool ay taalibeem ne leen yéen ñi sasul lu dul ci yàlla barkeel ngeen ndaxte nguuru yàlla yéen a ko yelloo yéen ñi xiif léegi barkeel ngeen ndax dingeen regg yéen ñi naqaru léegi barkeel ngeen ndax dingeen ree barkeel ngeen bu leen nit ñi bañee di leen dàq ak saaga di sip seen tur ngir doomu nit ki bu boobaa bég leen te bànneexu ndax seen yool dina réy ci laaxira ndaxte noonu la maami seeni bañ daan fitnaale yonent yi waaye nag yéen boroom alal yi torox ngeen ndaxte jot ngeen ba noppi seen bànneex yéen ñiy lekk ba suur léegi torox ngeen ndax ëllëg dingeen xiif yéen ñi ree léegi torox ngeen ndax dingeen am aw naqar ba jooy xàcc torox ngeen bu leen ñépp dee waxal lu baax ndaxte noonu la seeni maam daan jëfe ak ña doon mbubboo yonent waaye maa ngi leen koy wax yéen ñi may déglu sopp leen seeni bañaale tey defal lu baax ñi leen bañ yéene leen lu baax ñi leen di moolu te ñaanal ñi leen di sonal ku la talaata cib leex jox ko ba ca des kuy nangu sa mbubb mu mag bu téye sa turki képp ku la ñaan may ko te ku nangu say yëf bu ko ko laaj defal leen nit ñi li ngeen bëgg ñu defal leen ko su ngeen soppee ñu leen sopp bar ngërëm ngeen ci am ndaxte bàkkaarkat yi sax sopp nañu ñi leen sopp te bu ngeen defalee lu baax ni leen koy defal ban ngërëm ngeen ciy am bàkkaarkat yi it dañuy def noonu te bu ngeen dee leble te yaakaar ci ndelloo ban ngërëm ngeen ciy am bàkkaarkat yi it dañuy lebal seeni moroom ngir ñu delloo leen ko waaye sopp leen seeni noon di leen defal lu baax tey leble bañ yaakaar ñu delloo leen ko noonu seen yool dina màgg te dingeen wone ne yéenay doomi aji kawe ji ndaxte yàlla day wone mbaaxam ci ñu goredi ñi ak ñu soxor ñi nangeen am yërmande ni seen baay amee mënde buleen àtte seeni moroom ak ñaaw njort te deesu leen àtte buleen daan kenn te deesu leen daan baal leen ñi ci des te dinañu leen baal maye leen te dinañu leen may dinañu leen ëmbal natt bu baax bu ñu rokkas te yëngal ko mu fees bay tuuru ndaxte dees na leen nattal ak natt bi ngeen di nattale noonu Yeesu wax leen beneen léeb ne leen ndax gumba mën naa womat moroomam mbaa duñu daanu ñoom ñaar ci kàmb taalibe gënul kilifaam waaye taalibe bu jàng ba wàcc dina yem ak kilifaam demin lu tax ngay xool ñax gi ci sa bëtu mbokk te gisuloo gàññ gi ci sa bët yow nan nga mën a waxe sa mbokk sama xarit may ma ma dindi la ñax gi ci sa bët yow mi gisu gàññ gi nekk ci sa bët naafeq jëkka la dindi gàññ gi ci sa bët te noonu dinga mën a gis bu leer ngir dindi ñax gi ci sa bëtu mbokk garab gu baax du meññ doom yu bon te garab gu bon du meññ doom yu baax ndaxte garab meññeefam lañu koy xàmmee desul wite figg ci dédd walla reseñ ci xaaxaam noonu nit ku baax lu baax lay wax ndax loolu la denc ci xolam te nit ku bon lu bon lay wax ndaxte denc na lu bon ci xolam ndaxte gémmiñ la fees xolam lay wax lu tax ngeen may wooye borom bi borom bi te du ngeen def li may wax képp ku ñëw ci man di dégg samay wax te di ko jëfe ma won leen nu muy mel dafa mel ni nit kuy tabax kër mu gas fu xóot jot doj wu réy samp fa kër ga bi mbënn ma ñëwee wal ma dafa dal ca kër ga te yënguwul ndaxte nit ka dafa tabax kër ga tabax bu dëgër waaye képp ku dégg samay wax te jëfewuloo ko dinga mel ni nit ku tabax këram ci suuf si bañ koo defal fondement bi wal ma dalee ci kër googa dafa màbb ca saasa lépp yàqu ya xeet